day ànd ak euh, xol bu set ngir li ñuy yëg mu jóge si ñun ñëw si yow ñuy euh, wax lenn la ñu bëgg sëñ mooy talal loxo nga ñaanalal ñu suñu kilifa son excellence le président Macky Sall yéeneen si réew mi day kenn du la ko wax parce xam naa yenn relation yu particulière ngeen am ngeen ñaanal ñu ko bu baax ngeen ñaan yàlla jàppale ñu ba mbas bi fi nekk yàlla génn ko si dëkk bi am nañ si yaakaar lool continuer nañu ko doon xeexe gëm naa ne buñ ko continuer seen ñaan yi ànd si te mosu si jox parce que man xam naa si dara te njël benn laa ñëw taxaw ci sa boor te yaakaar naa li déclenché wu yëpp bés boobu la déclenché wu xam nga li may wax man tam xam naa bu baax bon nag ñu ngi tàllal suñu loxo mais di profiter si occasion bi tam di ñaan na ñëpp ñëpp ñëpp roy ku tedd gii nekk Touba. est-ce que. ba ma ko fekk mu toog ba mu génnee. dafa ñëw respecté mesures barrières yëpp bon nag jàngal nañu lu bëri bon nag loolu yaakaar naa ne képp koo xamante ne nekk nga si réew mi rek gis ku tedd ki ni mu taxawee si xeex bi ak li mu respecté mesures yëpp man ne dama dem a génn alhamdulilah xam naa léegi lan moo tax feebar bi di wàññi si réew parce que ñi xamante ne ñoom. man naa wax ne bu réew mi doon yëngatu ñoom ñooy doon can yi téye ko ñoo ñoo jëkk commencé dañuy gis kon nag dama naan alhamdulilah loolu rek laa doon danaa ko fi yokk. nee na di rafetlu bu baax sa taxawaay ak sa liggéey lu njëkk tey. ndax kat ba nga ñëwee ci ministère bi ba nga ni ci wàllu santé. mooy jiitu lépp. waaye jafe-jafe bi ci daan am bi nga agsee taxaw nga ci loo fi fekkoon rek yokk nga ko loolu nag sëriñ bi xam na ko mi ngi lay ñaanal bu baax a ndax xam na ne ñëw nga ci waxtu xat ndax fi nga dikki metti na ndax bi ngay dafa mi am ci réew mi waaye nag jàmbaar ci waxtu jafe-jafe rek lañ koy xàmmee waaye nee na mi ngi lay soññ bu baax nga gën a wéyal liggéey bi rek ndax ànd nga ci ak fulla ak farlu gëm nga it li ngay def nee na loolu moom yëg nañ ko bu baax kon ñi ngi lay sant ci turu sëriñ bi nga xam ne mooy borom liggéey bi ci taxawaay bi nga xam ne màggal gi itam. lu dul màggal gi itam. yaa ngi koy def ci dëkk bi. ndax lépp loo xam ne yëg nga ko ci dëkk bi. muy li ñu war a taxawee. bu la ko sëriñ bi waxee. day daal di jaar def ci nga koy daal def fasaasa. te daal di koy def it nag yitte. ndax sëriñ bi moom. nam ko doon waxee keroog ba fi président ñëwee. nee na ndax moom. سرين مودا خان مسوما دي سوخلا سبوكم سوخلا طالبي رك لاي دي نا خمنا نا لول موكو باي كول كيب كوكا ديمبل سي سوخلا طالبي فاو سرين بي دي لا نيانال فاو مو دي لا سام فاو ييت مو گرم نا ياو نا سات خواي تي والو بوبو راني تولا بو باخ يانكي ديف هيت دي كي ديف اي تخواي اك لومو خات خات نا kon dañ lay ñaanal bu baax yàlla dimbali la ba mission bi nga xam ne sa kilifa moo la ko dénk yàlla gën la cee may ndam nga am ci nag ay ndami ndam ndam na nga xam ne daal xolub sëriñ bi sedd na nee na moom mii doon seera si xolam sedd na nee na li ci des ak ñaan rek lañ koy war